yàgg na di leen sant di ci jiital sëñ Xaadim di ko sant ci dalal bi euh, di ci teg sëñ maam Cheikh Ibra sunu xel dafa dal parce que boo toogee surtout sëriñ Touba seq la ak surtout maam Cheikh Ibra Fall bu sa xel dalul dara dootu ko dal kon nag ñu ngi sant yàlla di ñaan yaakaar bi yëkkati ñëpp ba ñu ñëw fii yàlla bu ko yàlla tas sunu xel dal na waaye sunu xel sori na ku ñëw jaxaay sa xel dina sori nga xam fi jaxaay soxe ko gis ne inondation dafa am ci yërmandeem bu mag président lay wàdd décidé ne day taxawal jaxaay fii amoon ci nag yéene bu rëy ak plan bu rëy non seulement dafa leen bëggoon taxawal waaye dafa ne jaxaay benn xeetu picc la boo xam ne ca kaw lay nekk ba nga xam ne ndox dootu ko laal loolu moo doon idée mu ne nag dafa am mesure d'accompagnement loo xam ne moom lay àndal pour ñu def ko mu ñëw fekk parcelle Parcelles Assainies jël ci une partie ne nag nañu fexe ba ndox mi du yegg si fii mu am nu ñu waroon gasee booru tali am nu ñu waroon defee digg waaye li yàlla di def bi mu wàccee pour naxaral ko pour wane ne li mu fi def baaxul ñu saboter plan Jaxaay loolu la régime mu Macky Sall def loolu la Macky Sall fayee Ablaye Wade kon nag bu ma ñëwee fii tey fekkee woon loolu liggéey ci ànd ak moom ci liggéey ma dem pare fi dem Paris nekk fa avocat mu soxla jox doomam ministère bu toll ni mu toll daal di ma jëli woowaat ma ne ma taxawal liggéey fii kon nag su ma ñëwee gis li Jaxaay gis jaxaay bi ñu xalaatoon ak jaxaay bii ñu gis tey suñu yaram dafa doon kon nag ñun li ñu fas yéene mooy fexe lépp lu Ablaye Wade commencé woon ci liggéey muy jëriñu réew mi ñu yeggali ko ba mu mot sëkk mu fekk muy dund mu gis ko loolu mooy suñu suñu xel dafa daw aussi suñu xel dina sori parce que boo ñëwee fii jaxaay fii sama waajur bu jigéen daf fi am loo xam ne lii sama waajur bu góor am ko fi loo xam ne man mii amuma ko sama waajur bu góor am na fi turandoo mu ngi fi sama waajur bu jigéen am fi turandoo li ko indi mooy dafa am ñu dëkkoon plan jaxaay di ñëw kër ga Grand Yoff di fa fekk maire bi ñu def duggante ay kóllëre ba fi mu nekk nii presque ay mbokk lañu moo tax ñu ngi fii toog foo ñëw fekk fa sa yaay ak sa papa ñu am fa turandoo ci kóllëre sa xel dina dina sori sa yaram dina daw kon nag jaxaay sama jaxaay la ku baaxul kenn du la tuddee doom ñetteel bi sama xel dafa daj waaw waaw ñoo ko bokk. sama xel dafa sori. Mhm. waxoon naa leen ne sama xel dafa dal. sama xel dafa daj. daj bi mooy li ma daj ci jàkk ji ak li ma yëg ñëw fekk fi ay magu jàkk ñëw toog fii ma gis jàkk ni mu amee importance ci réew ak jàkk ni mu amee importance ci ci ci ci gox ma gis niñ ko def. kon nag euh, il faut ñu taxaw fexe ba jàkk ji mel ni jàkk war a mel te lépp luñ ci mën nañ ko def incha allah ñun nag dañu aadawul dige ndax dige moom yàkkamti ngërëm la te jàkk loo ci def sa bopp nga ko def kon nag li ñu yëkkati tey duma ci sori mu ngi guddi benn bi mooy dañu ñëw pour saxal jàmm ñu fekk fi yaa lépp lu ñuy def nañ ko def ci jàmm boo amee jàmm nag bugg jàmm ji sax wala mu yokk dangay ngay jéngu boo gisee lu war a tax nga jéngu Sénégal gis nañ lu war a tax mu jéngu mooy nit ñi def Sénégal jéngu jàmm jéngu boo paree ci loolu da fi jëlee li nga xam ne lii moom mooy ndóol Sénégal jëlee fi ndóol nag mooy jëlee fi Macky sàll rek te jëlee fi Macky sàll mooy jëlee ko fi au premier tour. c'est-à-dire bu ñu defee élection premier tour dañuy wax leneen mais Macky Sall dañ ko jël rek. xam naa puus ko dina xaw a tuuti waaye puus ko rek mu déplacé ci jàmm mu dem ci jàmm waaw saxal jàmm mooy jéngu ci jàmm jërë fi Macky sàll ci jàmm ñeenteel bi mooy jubbanti Sénégal man duma leen may de man duma leen lebal de jigéen ñi xale ndaw yi duma leen lebal duma leen may dama leen jox seen ax li ngeen moom laa leen di jox waaye leen loolu waaye li ngeen moom mooy li nga xam ne koom-koomu Sénégal mu jóge ci jaww ji jóge ci suuf si muy alal bu ne gañ ñu jël ko di ko foye di fay ay jabaru ambassadeur cinq cent mille par mois genn wàllu million yéen ngeen toog fi ndax jabaru ambassadeur di yore ay saabu cinq millions di takk ay montre treize millions di dawal ay oto deux cent millions ñu yore ko ñëpp toog fii di ndóol ñu koy def kon loolu moo am Sénégal kon jubbanti boobu moom la ñuy def dinañu jubbanti ci jàmm bu ñu jubbantee nag mu doog a am njëriñ njëriñ bi mu war a am ci ndaw ñi am ko ci xale yu jigéen ñi am ko ci liggéeykat yi Sénégal ngay gis ku liggéey ba retraité gën a al ko boo liggéeyee ba retraité da nga war a noppalu mais da ngay liggéey ba retraité di daw di wuti dépense dinañu taxawal minimum vieillesse boo xam ne bi boo retraité muy góor muy jigéen nga mosoon liggéey ak nga bañoon mosoon liggéey dina am at moo xam ne boo ko amee rek dafa am pension bu la état bi di jox pour nga mun a dund kenn dootul di tàllal loxo Sénégal ndaw ñi dinañu fexe ba ndaw bu ne boo juddoo Sénégal état bi mooy am droit mooy am obligation ah jox la loo jànge dalay lay lebal boo xam ne da ngay liggéey da ngay jàng ba pare boo jàngee ba pare nga fay parce que ñàngum xale ak wér-gu-yaramu xale responsabilité état la loolu xejul ci poosu borom kër fay ñaan ak faj kooku borom kër mënu ko def état moo ko war a def responsabilité état boobu moom il faut ñu fexe ba état bi jël responsabilité te loolu yomb na boo xamee fu xaalis bi du jóge ci biir réew mi maanaam recettes yi noo ko jëlee ci douane bi ak ci lemp boo xamee fi ñuy jëlee réew ci bitim réew xam fi ñuy soqee fi ñu jëlee alal ci suuf ak ci jaww jeeg fépp ak ci géej gi boo ko xamee alal ji mu ñëwee ba taaju fii mais da nga war a xam fi nga koy dugal boo xamee fi nga koy dugal mu am foo xam ne fii boo ko fa dugalee du jëriñ Sénégal bul ko fa dugal foo xam ne boo ko fa dugalee mu jëriñ waa Sénégal nga dugal ko fa loolu mooy politique ku ne politique ku ma nag xam loolu xew tey politique moom ku politiqueul tey mooy d'accord nga ne rek continuer al na ñu fexe ba réew mi alal ji mu am ñu dugal ko foo xam ne dina am jëriñ pour waa Sénégal loolu moo ñu yëkkati woon wasalaam ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp gërëm tàccu leen Boubacar tàccu leen Boubacar kon dañuy wax sëñ bi la jox waaye sëñ bi delluwaat na la ñaan gi imam jox na la ndigal nee na nga ñaan farixiina غير مقحورين ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أرحم الراحمين Oh, wait.